adduna bi ndaxte tey la kii nga xam ne mooy cinquième président du nom di son excellence monsieur Bassirou joomaay jaxaar fay jël fonction doon njiitum réewum Sénégal tey nag gis nañ ab président bi nga xam ne sol na yére bi nga xam ne mooy yére président de la république ndaxte tey le ton été assurant le ton était solennel le ton été serein mooy maanaam gis nañ ci nit ki dal gis nañ ci nit ki assurance gis nañ ci nit ki dogu pour xam mission bii nga xam ne moom moo koy xaar loolu moo tax ba si discours bii nga xam ne moom la njëkk a yëkkati jagleel ko àdduna bi mooy maanaam dellu siwaat ci lii nga xam ne mooy mandarga réew mi Sénégal mooy le pays de la teranga te loolu dafa nekk mbir bi nga xam ne mbir mu am solo la ndaxte démb bi may def vidéo di jëm ci kàddu yi nga xam ne Tahirou Sarr yëkkati na ko gis naa commentaire yi nga xam ne moo ëpp jib ñu bëri dañoo jàpp ne réewum Sénégal dafa war a suppi doxalin génnee gan yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi wala ñu taleen ay këyit man damaa ne lii nga xam ne mooy sécurité kaaraange réew dëpp politicien moo koy gérer c'est les forces de défense et de sécurité ñoom ñoo koy gérer te yaakaar naa ne suñuy forces de défense et de sécurité caaxaanewuñu suñuy frontière léegi tey lii nga xam ne mooy sunu mandarga di teraanga mi nga xam ne moom la ñu àdduna bi yëpp xamee mu nekk li nga xam ne si suñuy maam lañu ko doon ndaxte boo nee dëkk Ahmadou Bamba nga ne dëkku Cheikh de Baax euh, euh, Malick Sy nga dëkku kilifa diina yu mag yi fi nekk yëpp jaar fi ak nit yu baax yi nga xam ne dañ fay ñaan tey réewum Sénégal saa yu ñu koy séntu ci guuta mu wane benn xarkan bi nga xam ne dafay jaaxal àdduna bi yëpp amaana sunu teraanga mooy sunu gàllaaj te waykat bi doon wax ne teraanga Sénégal buñ koy foowee lii la son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay tàmbalee discours am di xamal àdduna bi yëpp ne le Sénégal reste le pays la teraanga sanga tey di indi ay discours xénophobe waruñu di indee discours bi nga xam ne dañuy xeeb suñuy dëkkandoo wala dañuy bëgg a bedd suñuy dëkkandoo wala dañuy bëgg a génne suñuy dëkkandoo waruñu dañoo nekk ci réew mi nga xam ne yaakaar naa ne ku nekk ak sa wërsëg te wërsëg bi yaatu na benn peeru yaatu bi nga xam ne comme ni ko sunu maam yi doon defee ñëpp xëj nañ ci te loolu yaakaaruma ne lu ñuy yàqal la waaye lu ñuy yokk la sama gis-gis laa wax ku nekk nag am nga sañ-sañ xalaatee nu la neex ku nekk nag am nga euh, sa gis su bopp man du ma discuter ci point de vie des autres mais gëm naa ne daal lii nga xam ne mooy suñu identité di sunu teraanga yaakaar naa ne suñ ko yokkul waruñu ko wàññi parce que jàpp naa ne li tax ba ñun saa ñu séentoo ci guuta ñu mucc ci guuti googu amaana sunu teraanga mooy sunu gàllaaj sama gis-gis personnel la léegi nag damay ñëw ci discours bi nga xam ne son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay yëkkati na ko wax na ne teraanga wax na ne aussi liggéey wax na ne jub jubal wax na ne aussi wàllu justice mooy maanaam fexe ba séparation euh, pouvoir institution yi ak justice bi nekk li nga xam ne luy mandargalu léegi nag man damay ñëw ci kàddu gi nga xam ne moo ëpp solo ci discours am muy maanaam le changement systémique mooy le changement de système tey gis naa ne amul kenn kuy taxaw ne man maay gëwalu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nañ impact négatif bii nga xam ne ñu ñuy duppee le gëwal du président amoon nañ ko si njiiti réew yi nga xam ne ñoom ñoo fi jóge tey yaakaaruma ne naa toog ba dégg ñuy wax euh, sous le haut patronage de son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président bi nga xam ne liggéeyam dafa bëri li ñu ko sas dafa bëri yaakaar naa ne warul am jot di anime ay ay di di di euh, présider wala di euh, pare ne ay spectacle woy ak ay fecc ak ay ay xumbatel yu nu mel loolu moom nañ bàyyi seeni borom dem def seeni wàll ñu bàyyi président bi mu liggéey yaakaar naa ne aussi Sénégal bii nga xam ne ci lañ jëm kenn du dégg ne ay joomaay moo ñu doy ay joomaay deux mille trente cinq ay joomaay lañ yaakaar ndaxte kii nga xam ne mooy président Pastef di Ousmane Sonko wane na yoon bi wane na Sénégal c'est pas les hommes qui comptent mais c'est le projet ou les idéaux qui comptent ndaxte tey moom bu jàppoon ni moom cote moo mën a incarner projet PASTEF kon yaakaar naa ne kii di son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey du doon président pour wax lan di wax ne man Diomaye laa gëm Diomaye laa yaakaar loolu war na jeex Sénégal mooy maanaam di tarbiyu ay nit pour wax lan bu fekkee ne l'homme providence n'existe pas kon ñun ñëpp war nañ jàpp ne ku nekk si ñun rek boo defee la la la war ak fa nga nekk rek yaakaar naa ne mun nañ avancer di bàyyi léegi xeetu politique yi nga xam ne moo doon consister di jël ay ay ay politiciens di jël xaalisu askan bi di ko sponsoriser ay lamb ak ay concert ak yu nu mel di jël ay mouvement de citoyens yi nga xam ne pour lekk xaalis kese la di def lii nga xam ne mooy di recevoir ay palais ay nit di leen di jox ay malitu xaalis ak ay may oto yaakaar naa ne loolu dinañ ko woon désormais ginnaaw comme ni ko booy di waxee wala ñu ko bëri di waxee toog muy dox war naa dañ ci réew mi léegi ku nekk fa nga nekk war ngaa liggéeyal réew mi mun ngaa fexe ba yow ci yoon bi nga xam ne ca nga nekk wala ca la ngay yëngu nga béy sawaar état bi ñëw créer cadre wala environnement bi nga xam ne ku nekk la ngay liggéey di nga ci gis ci bopp waaye ku yaakaar ne da ngay toog sa kër ay xaalis di la fekk si wala da ngay tagg nit wala da ngay tagg indi benn kuréel bi nga xam ne da ngay dënk ko duppee Diomaye moo ñu jooy wala les amis de Diomaye wala yi ni mel loolu war naa jeex Sénégal parce que kii di Ousmane Sonko xaala na yoon bi wan na ne ne c'est pas les personnes qui bi nga xam ne dañ koy jël di ko déifier comme ni ñu def yeneen njiiti réew yi yaakaar ne ñoom ñoo mën lépp ñoom ñoo xam lépp ñoom lu ñu def du sotti ba pare ñu bu leen gëmloo ne mën nañ fay toog ba deux mille quarante wala ba deux mille cinquante naa ne loolu war naa Sénégal war na koo woon ginnaaw ñu jëm ci lii nga xam ne mooy l'essentiel comme ni ko son excellence monsieur Bassirou Diomaye fay waxee lii nga xam ne mooy sunu mandarga di sunu teranga ñu garder ko lii nga xam ne mooy liggéey mu nekk sunu xarit ak lii nga xam ne mooy jub ak jubal fexe ba ku nekk say axak ak say yelef ak say sañ-sañ ñu respecté la ko man lii laa jàngat ci discours bi nga xam ne Bassirou Diomaye fay def na ko le Sénégal reste un grand pays ndaxte tey àdduna bi won nañ ko beneen xar kanam bi nga xam ne ñun ñeew ñu dara lii nga xam ne mooy réewum Amérique ñeew ñu dara lii nga xam ne mooy les démocratie occidentale ndaxte ñun su suñu sein am nañu ay ressources yi nga xam ne te ressources yooyu doon dem si kam ngay bamtuwaat di ko dellu delluwaat suñu teraanga ci la bokk suñuy maam ñoo ñu ko ñaanal suñuy mag yu baax ñoo ñu ko fi def loolu nag gàllayaay buñ ko foowee loolu laa gis seen xarit la woon Léon Balthazar le caméléon di leen ñaanal kenn dalu jàmm ak salaam